dafay aar wér yaramu doomu aadama yi ak mala yi te it dafa nekk mbay moo xam ne day aar suuf ndax suuf euh, mooy euh, capital bi nga xam ne suñu continuer nii ci mbay mi dana nekk loo xam ne dana ñu euh, bay loo xam ne dana yàgg lool ci it dana nu dana sax dàkk nguur gi mës a jógee ci taxawu mbayu agriculture biologique parce que yàgg na amoon na fi benn projet boo xam ne sax euh, agriculture saine et durable boo xam ne mi ngi nekkoon direction agriculture yàgg na yàgg nañ ci yëngutu xëy na ñii dafa nekk ay organisation de producteurs yoo xam ne dañ ñëw fii ci région bi nekk ci mais loolu nguur gi da cee mas a jóg taxaw ci ndax yaakaar nañ ne li tax euh, suñu euh, ëllëg mën a sax mooy li ñuy def ñu sóoraale ci ëllëg ci agriculture biologique mooy sóoraale suñu ëllëg pour que ndaw ñi ñiy ñëwaat génération yi ñëwaat ëllëg am ci fu ñuy dund am ci euh, euh, dison environnement bi maanaam alam boo xam ne alam bu sell la te it danañu mën a dundal njaboot gi fi nekk yëpp ndax liñ waaw war nañoo yokk taxawaay bi loolu moom d'accord naa ci euh, liñ naan làbbali fas day tax fas mën a daw loolu defe naa ne tamit nguur gi moom war na gën a yokk loolu ci it danañu ko àggee ministère agriculture ak équipement rural ci it loolu ci lañ mas a taxaw mais danañu gën a yokk suñuy jéego pour que affaire bi war a gën a euh, gën a taxaw daal. semaine bi ñu gën ngeen waajal nawet taw yu njëkk yi ñëw Thiès. déedéet taw bi fi mu ñëwee yaakaar naa ne ñun fekkoon nañu ñu pare ndax gerte gi jo jotoon nañ ko joxe presque à quatre pour cent ci point de collecte yi nit ñi jënd nañ ko ñi ngi jënd jiwu bi boo demee ci euh, dug ci euh, mboq mi. ak bassi bi ak ñebe ji yëpp ñi ngi koy commencé di ko joxe ci ñi ngi koy jaay donc taw bi euh, bettuñu ñun fekkoon na ñu jëloon suñu matukaay yëpp xëy na am na lu ci des léegi mais li ñuy wax rek euh, mbay mi moom dañoo nekk ci li ñuy wax ne changement climatique daaw xëy na par rapport ak daaw ren teel na taw mais comme li ñu koy waxee foo départ yi maanaam bay euh, ji ba pare ñu toogaat lu xaw a yàgg mu mu bañ a am taw loolu mën na am. Euh, gàllankoor mais yaakaar naa ne niñ ko xalaatee organisation ouest africaine yi xalaat ko ne yaakaar nañ ne ren nawet buy am ndox la yaakaar naa ne ca it ñoo ngi ci fin juillet ca souvent dañ daan wax 14 culet ci la nawet di kii donc sorewuñu ca boo demee rek fii Ndiaganiao ñi ngi ci 134 millimètres nga dem yeneen yi ay 70 ay kii en cas taw bi mu taw defe naa ni nawet bi balaa ñuy àgg ci diir bu baax dana seppali ca it gàncax gi dina mën a taxaw ca dina mën a continuer incha allah. Euh, autorité yi fi teew yëpp ak waa ex yoo xam ne ñoo ñu jàppale ba projet bi mën a antu ba ñu mën a amal foire bi ñu ngi sant ñëpp euh, ndaxte euh, lii dafa nekk liggéey boo xam ne ñëpp la laal ndax mbay mu sell li ko dalee ci ñun jigéen ñi nga xam ne ñoo yore kër yi yaakaar naa ne jàppale nañ bu baax. ndaxte wér-gi-yaramu njaboot gi ci suñ loxo la ko yàlla teg ñooy ëmb ñooy imbi ñooy nàmpal ñooy boot bu feebaree ñooy faj yaakaar naa ku la jàppale ba nga mën a bay mbay moo xam ne lekk ga dina sell suuf siñ ko bayee sell ndaxte bu yàggee suuf sa dina dekki ndax wax quoi nañ wax ne euh, suuf si dafa dee li ko rey moo di engrais yi nga xam ne moom la ñu utiliser di wax ne buñ ci bayee dinañ am mbay muy bëri alors que santé bi dafay nekk loo xam ne day day. produit ngeen bon produit yi ñuy euh, yi proposé bare na li ko dalee ci mbay mi gàncax gi ndax euh, boo waxee euh, arboriculture garab gi yi meññ la bu fekkee da nga dem ci wàllu mbayum mbayum dër mi ay légumes yu ñuy utiliser di ko lekk ci kër yi ci la bokk itam même jur gi. boo ko joxee euh, gàncax goo xam ne da nga ko jëlee ci euh, li des des ci mbay mi di leen ci dundale ñoom danañ jot seen wàll ci wér-gu-yaram bi alors que loolu dafa nekk loo xam ne te wér-gu-yaram dafa nekk loo xam ne dafa transversal ndaxte boo amul wér doo mën a jàng soo amul wér doo mën a liggéey soo amul wér doo mën a dox doo mën a euh, liggéey pour sa réew doo mun def dara ndax li ngay gën a tal mooy uti foo fajoo donc euh, li tax ma ne agriculture biologique dafa di loo xam ne dafa transversal moo di wàll yooyu yëpp lay lay balayee ba mu set donc euh, mbay mi war nañ ci jàpp bu baax rawatina état bi ndax état bi dafa dafa yore askan wi yëpp sans distinction barute am xaaj ak seen ndax bu ma dee wax sa xaaj ak seen moo di ñi nga xam dañuy agriculture conventionnel warul leen xaajaat le ak ñi nga xam dañuy def bio li liñ leen jox ci jumtukaay jàppale leen ci liggéey bi ni mu ware war nañ ci jàppale ñi nga xam ne dañuy def bio. si ban fànn ngeen xaree yéen euh, ñi euh, engrais biologique dafa am alors que dafa dañ ñu ci war a jox suñu wàll comme ni ñu joxee waa conventionnel yi bu ko defee ñun li ñu bëgg laaw ci suuf si pour bay ko ñu mën ko bay ndaxte agriculture biologique dafa laaj agriculture euh, engrais biologique ndaxte suuf si dafa yàqu il faut que ñu defaraat ko. il faut que ñu am patience pour mën ci exploiter li ñu bëgg exploité pour que askan wi mën a dund dund bu baax pour que suñu wér gi yaram ak suñu wér gi njaboot yëpp mën a am bu ko defee euh, état bi dañ koy jàppale ci wàll woow ndax ku la jàppale ci wér gi yaram bul wax ne euh, jàppale wu donc euh, loolu laa amoon ci may la voilà donc agriculture biologique dañu am jafe-jafe li jafe-jafe bi may jëkk a wax mooy euh, suuf suñu bay dafa dafa doyul am am nañ déficit ci wàll woowu war nañu jox ci suuf si ndax suuf si lan lay jariñ bay dundal kon bu ñu amee suuf defaraat ko ba mu baax mën a bay li ñu bëri bëgg a bay li ñu naan autosuffisance alimentaire dinañ ko mën a euh, assurer ndax boo bayee mbay mu bari sell te mucc ayib askan wi dina mën a euh, dund ni mu ware pour que wér-gu-yaram bi mën a nekk ni mu a nekk. voilà bonjour tout le monde moi je me nomme Doudou Diop euh, je suis le président de la FENAP euh, je suis aussi le secrétaire général de la fédération des agropasteurs de Diender je suis membre du conseil d'administration du CNCR. voilà que représente cette foire euh, est des maillons très importants pour la vie de l'agriculture biologique. Euh, Cette fois travaille pour une harmonisation sur le label Bio Sénégal. Parce qu'il y a énormément aussi de labels au niveau du Sénégal ou bien des organisations qui accompagnent des paysans sur un label. Mais tout se repose sur une production saine et durable. Donc le Bio Sénégal, j'insiste sur le Bio Sénégal pour au moins qu'il y ait un label commun. Et cela ne peut être vraiment validé qu'avec l'accompagnement de l'État. Ça aussi, nous voulons, avec le cahier de charges que nous avons élaboré, que l'État au moins prend en compte le cahier de charge de la FENAP et surtout le label Bio-Sénégal. Et dans ce cadre-là aussi, beaucoup ont parlé de l'accompagnement. Effectivement, on ne peut pas exclure l'accompagnement de l'État parce qu'il y a les autorités qui sont avec nous, mais quand même, avec les intrants, avec l'équipement, avec la formation, avec la sensibilisation, surtout vous de la presse, je crois qu'il y a un aspect extrêmement important sur la communication. Et c'est dans ce cadre-là que nous voulons que l'État, la communication, la presse aussi donne son apport le plus absolu. Est-ce que l'agriculture biologique a un apport économique assez conséquent Mais effectivement, l'apport économique, c'est à partir de la santé, comme vient de le dire la dame. Quand on n'a pas la santé, on n'aura pas la force de travail. Quand nous n'avons pas la santé, la santé de la terre, La terre, si elle n'est pas saine, on ne peut pas donner une bonne production. On parle de rentabilité, mais une rentabilité durable vaut mieux que d'avoir une rentabilité immédiate et qui pourrisse dans l'immédiat. Donc tout ça, c'est un avantage extrêmement important sur l'agriculture biologique. On peut en énumérer beaucoup de choses. Donc euh, vraiment pour insister sur l'accompagnement, surtout de l'État, nous voulons que l'État prenne en compte l'agriculture biologique dans sa globalité. Et que surtout ce label Bio-Sénégal avec le cahier de charge, nous y insistons que l'État prend en compte. Heureusement que nous avons le DRDR à côté de nous et il a donné l'engagement de faire peut-être l'information à qui de droit. Vraiment, ça nous réconforte et vraiment, nous avons beaucoup d'espoir. Et par là aussi, nous ne pouvons pas ne pas remercier les organisations d'appui qui nous accompagnent. Parce que aussi, il y a la FENAP qui fait des actions sur le terrain, mais aussi l'accompagnement des organisations d'appui comme ex est extrêmement important. Je crois que c'est cela vraiment que je voulais en augmenter parce que les autres en ont beaucoup dit et nous vous remercions beaucoup. Nous euh, remercions surtout les producteurs parce que les producteurs jouent un rôle extrêmement important dans cet aspect. Euh, il euh, y a le contrôle interne, il les jeunes animateurs qui les accompagnent sur le terrain, mais aussi il l'équipe technique de la FENAP, il y le suivi évaluation, la coordination, il le l'administration euh, financière, tout cet ensemble-là vraiment font un effort extrêmement important pour le développement, surtout de cette agriculture biologique. On parle de foire, des exposés. Naturel. Et effectivement, il y a les poulets naturels que les femmes font l'élevage. donc il y a énormément de diversité de production bon, qu'on est en train de mettre dans le marché euh, du bio label Sénégal.